Nous wane xar kanamu Sénégal ci taxawayam ci Afrique ak ci monde entier en tant que réew bu am démocratie bu fonk justice donc li ndam la ci ñun ci peuple sénégalais euh, damay taxaw tamit féliciter remercier suñuy responsable suñuy militants bu ARC alternative pour la relève citoyenne bi ñu tàmbalee aventure beeg légui juróom-ñetti wër la juróom-ñeenti wër je pense que marqué nañu histoire politique du Sénégal De qui ci liggéey bu farlu liggéey bu dëggu important, bu bu sincère important, le nañu Sénégal yëpp jëlee ko Oussouye ba Saint-Louis ba sénégalais yi mais surtout déglu leen déglu ak Sénégal Nous n'y tamit suñu bëgg gi ñu bëgg Sénégal ak suñu yéene gi ñu am pour liggéeyal leen ma ciy defal nag jéggal bu spécial jigéen ñi nga xamante ne fu nekk taxaw nañu fa accueillir ñu jël candidature bi tamit def ko seen yëf seen bos ginnaaw loolu di sant di gërëm samay njaboot samay kilifa sama borom kër euh, ci gunge bi accompagnement bi ak taxawaay bu dëgër bu farlu bu ñu am suñu wet di wax nag nous nous continuer à bi te moytu bu baax surveiller élection bi ba nga c'est le moment de féliciter l'ensemble de mes co-adversaires co-candidats les adversaires politiques parce que cette campagne électorale a été inédite 12 jours pour convaincre les Sénégalais pendant la période de Ramadan au nom de la démocratie au nom de la République. Je remercie et je félicite tout le monde et je demande à tous les Sénégalais de rester sereins jusqu'au moment, jusqu'à l'heure des proclamations des résultats. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.